kooku xam naa ni comme ni ko ñëpp waxee rek ñi les recalés. ñi ñuy bañ ñi bañ. bon mais fii ñu toll tey actuellement yaakaar naa waxtaan mënut a ñàkk. man loolay sama gis-gis. ndax man dama doon faral di wax naan bu fekkee dañoo nar a dem ci élection ak fitna. Mhm. wala dëkk bi nara a yënguwaat ñu bañ a dem élection ñu aj élection yi sax moo ko gën. ndax mhm. euh, man dama jàpp ne jàmmu Sénégal man moo ma gën a lépp euh, am na ñu bëri ñu bëggoon bokk tey bokkuñu wax ji bëri na la comme ni ko doyen waxee léegi la cas waat Wade ki demoo Ndiaye la et jusqu'à présent ñu ngi continuer di wax dañuy bokk dinañ xool par par par A par B nu ñu def ba bokk hmm. bu jaree toog waxtaan nañ toog waxtaan mais loolu du président moo koy initier ndax bu ko initier dañuy day mel ni moom da ko bëgg moom li mu mën def rek moom mooy respecter le calendrier républicain waaye moom itam en tant que chef d'état je ne dis pas chef de parti en tant que chef d'état tey bu fekkee vraiment les acteurs économiques la majeure partie tey teg nañ sur la table quelque chose ba nga xam ne war nañ ci mun a waxtaan pour ñu dem vers des élections apaisées mm-hmm. yaakaar naa waxtaan boobu noonu ko bañal parce que nag à tout ndax bu ñu nee waxtaan waxtaan la. waxtaan la ndax ñi ñi bind lettre bi c'est des bon même bu fekkee nekkuñu des grosses pointures de l'arène politique. Hmm? mais c'est des acteurs politiques. Hmm. les plus gros laa wax. bon boo xoolee ñi bañ a dem ñoom mooy ñi ci ëpp tur les Bougane les Aminata et autres. les docteur Abdourahmane Diouf et autres. bañ na ñoom ñëpp dañoo bañ. moo tax ma ne parmi ñi ñu recalé les grosses pointures dañoo bañ a dem. ñeneen ñi même bu fekkee sax ñee ñoo leen ëpp tur c'est des acteurs politiques. Mm-hmm. et ils représentent quelque chose. kon ñoom lan moo taxoon ñu bind lettre bi ñu d'accord woon ci lettre bon xam nga loolu itam wax la ci biir wax. Ah. dinañ ci ñëw waaw xam nga loolu moo tax may la loolu itam wax la ci biir wax. Hmm? ndax au début ma man impression bi ma njëkkoon am moom mooy ils avaient manifesté leur intérêt à vouloir vraiment discuter. ah sur sur sur sur l'organisation des élections ñu hmm. xoolaat mbirum parrainage yeeg yooyu ni mu demee ak nan la ñu def ba éliminer leen tey bu ñu demaatee ba ci biir ñenn ñi naan du ñu dem loolu itam jaxasoo na ci biir xam nga politique nag moom am na nga xam ne doo comprendre doo comprendre le sénégalais lambda du ko mën a comprendre hmm. mais daal ci biir seen biir yaakaar naa waroo am na fa hmm. ah léegi nag li ci des moom mooy bon bu fekkee président dalal na leen déglu leen man jàpp naa ne li gën pour Sénégal ci jàmm parce que man jàmm Sénégal moo ma a lépp tey ñoo ngi tey xëy toog di def suñu émission c'est parce que jàmm moo ñu ko may man li may faral di wax moom mooy acteur politique yi vraiment waruñu jël en otage la population mhm. damay bàyyi xel toujours ci fitna yi fi xewoon ak li ko juróom loolu lépp nu ñu mën def pour éviter ko pour dem ci ay élections yu apaisées yaakaar naa nañu ko def pour jàmm mën ko ne di am ci biir